tidur jàmm ba ñu ñu entraîné ngay jël soo gars yi yéegal live bi won leen Libidor Libidor moo nekk nii Libidor Libidor miy bëre moom moo nekk nii Libidor miy bëre moo nekk nii ale Abdoulaye na ngeen ji yàgg yededa li des bariwul de